mbokk yi gis ngeen ko nii ah, fii la kii xale bi nga xam ni moom la wax moo gaañu fi fii nii nii la deewee ah gis ngeen ko nii moo ngi nii nee nañ fii la lakkee ba jeex ndeysaan nee nañ fii la lakkee ba jaax si fauteuil yi si fauteuil yi la tëddoon mooy nii ngeen gis nee nañ fii la tëddoon si suufu fauteuil bi fauteuil yaa ngi ne fii dafa lakk ba jeex ndeysaan na trop dëgg yàlla metti na trop metti na trop fii ba tey ndeysaan dégg nga déggal xale bi nee na ndeysaan li na de laay gis ko nii moo ngi nii fi nga xam ni mooy ki nga xam ni moo génn àdduna moo ngi nii fii la lakk ba jeex fii la fii la lakk ba jeex xam gis ngeen ko noonu mu ngi noonu gis ngeen ko nii gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu gis ngeen loolu lakk-lakk baa ngi nii gis ngeen lakk-lakk baa ngi nii fauteuil yaa ngi ne ay fauteuil ñoo fi tegawoon nee ay fauteuil moo fi tegawoon mu lakk ba jeex gis ngeen mbokk bi promédia tey lii la ngeen indiloon tamit waat fi nga xam ni mooy en face Massalikul Jinaan gars bi jàmbarloo place de l'Obélisque la ba fii ba fii ñoo ngi nii tey Massalikul Jinaan fu mu jaakaar lool te it gars yi dañoo xeex ba foofu